wax dëgg yàlla Sénégal dëkk boo xam ne dañ ko respecté au niveau international en matière de droits humains ak euh, loolu nag euh, dama koy faral wax lu koy firndeel mooy euh, tey boo gisee sénégalais yi ñoo xam ne dañu ñëw suñu dëkk fekk ñu fii ku liberté d'expression li koy firnde tamit mooy boo xoolee suñu presse am liberté d'expression dañuy wax euh, en tout cas sentir te kenn jàpp leen prison te tey par exemple journaux pour xoolee titre yi Sénégal presse bi da ngay presse bi am indépendance dama koy faral tout le temps man saay Afrique fu dem rek luñ may Sénégal dëkk boo xam ne euh, dëkk boo xam d'ailleurs pour vous loolu sax parce que

Euh, euh, def na ay jéego yu bëri pour euh, en tout cas ak ak yëlleef doomu aadama boo xoolee temps yële rek maa ngi def benn communication ci PGO partenariat pour un gouvernement ouvert ñooñu tamit boo gisee ñu accepter Sénégal ci partenariat boobu bokk na ci mooy Sénégal dafa respecter ak ak yëlleef doomu aadama donc tey euh, ku ne Sénégal euh, ak ak yelleef dafa sooxee mun nga ko wax mais wax dëgg yàlla du événement mënuñu sukkandiku ci événement yi pour ne ak ak yelleef doomu aadama dafa su euh, sooxe Sénégal ñaareel bi tamit dama koy faral wax tout le temps euh, droits humains du manifester du liberté et wax euh, droits humains tamit moy euh, droit à l'environnement euh, droit à la santé amna luñuy droit catégoriel yi pour les ak ak handicapé loolu yëpp bokk na ci e, en tout cas taxawaay Sénégal te gis ne nañu boo xoolee e, ci taxawaay boobu Sénégal e, le président bi def na lu ñuy wax bourse de sécurité familiale def na lu ñuy wax couverture maladie universelle def na lu ñuy wax revalorisation euh, de la pension euh, de retraite def na lu ñuy wax carte d'égalité des chances donc loolu yëpp droits humains la tey am na ay pays yu bëri yoo xam ne même ci filets sociaux yooyu dañu naw dañu ne noo Sénégal dañoo am avancé ñun léegi nag xam ngeen ne lu wax souvent euh, droits humains processus là par exemple damay faral dëgg ñu ne waaye rapport bi Sénégal rapport bi Sénégal mais amul pays bo xamné dañuy def rapport duñu gis ay manquement day am voilà mais jar moyen la voilà par exemple euh damay faral wax tout le temps bo nekké élève am ay matières yu bari da ngay am matière bi 15 nga am matière bi 16 nga am benen 18 nga am benen 6 mais moyen bi lañu def pour ñu né euh qui élève bi euh, moyenam 15 le seize la voilà du benn matière rek la ñu def te Sénégal nag loolu mooy problème bi souvent da ngay gis benn rapport ñu gis benn ñu jël benn note ñu fàtte eh, moyenne général bi donc euh, pour euh, mu tënk rek mun nañ ne Sénégal dëkk boo xam ne mu ngi en tout cas respecté ak ak yëleef doomu aadama